panel bi ñu doon euh, def légui ni donc euh, euh, dañ ma waxoon ma wax ci xarala yu bees yi nan la mëna a fexe ba njàng meeg mi gëna bëri qualité lolu nak wax ci du jafé ci man parce que suñu association bi synergie pour l'éducation au numérique et aux médias si lool rek lañu yëngu c'est-à-dire nan lañuy def ba nga xamné xalé yi yi jàng ak kat yi mun a jëriñoo internet bi xarala yu bees yi ci nu mu gënee pour mun a yokk seen xam-xam yokk seen compétence donc xarala yu bees yi dina tax ba nga xamante ne nit fu mu munti ne mu xam-xam am xam-xam du ko jafe dina tax ba nga xamante ne yow heure bi nga buggee jàng su dee guddee la gënal di nga mun a jàng si guddi gi su dee bëccëg la di nga mun a jàng su fekkente ne yow seetaan ay vidéo wala xool ay dessin moo lay gën a gaaw a mun la comprendre loo tamit mun na ko def donc euh, xarala yu bees yi buñ ko jëriñoo ci ni mu waree day yombal njàngale mi mais bien sûr il faut ñu équiper leen tamit euh, leneen li nga xam ne wax naa ko ci tamit mooy ne. xarala yu bees yi kenn umpalewul ne dafa bëri tamit lu muy lore léegi nag ñun bu ñu dee ne association lañ ne dañoo bëggu xale yi ak euh, jàngalekat yi di jëriñoo xarala yi bokk na ci suñuy mission ñu fexe ba wan leen nan la ñuy fexe ba mucc ci jafe-jafe yooyu ñu mun a am ci xarala yu bees yi sensibilisation sur un internet responsable ndaxte xarala yu bees yi paaka ñaari boor la bëri na yu baax ci boo ko xamee jariñoo ko mais bëri na lu muy lore ci soo ko xamul noo soo xamul noo koy jariñoo donc ñun suñu bëgg-bëgg mooy fexe ba nga xamante ne xale yi parce que xale yi ñooy nekk magu ëllëg ñu xam nan la ñu mën a jëriñoo xarala yu bees yi ci nu mu gëne ndax tamit loolu mooy mun a tax Sénégal ak Afrique fexe ba jot ja euh, egg ci yeneen réew yi nu ñu egg ndax xam-xam léegi foo ko foo ko soxlaa amee ko fa motax sank euh, sànq waxuma ci français mais ñun li ñuy def tamit moy fexé ba xalé di mëna a créer parce que ba fiñu tollu ni dañuy consommer rek application bu am nga cliquer heureusement amna fi ci réew mi ñoo xamné ne ñu ngi ciy mais dañoo bëgg mu commencer depuis le primaire xalé bi xamné man mëna créer application pour fajj ben soxla bo xamantene dafa yitel ñëpp. merci il faut dire que euh, la Confemel est une institution qui regroupe près de 44 membres et nous avons deux programmes essentiels où nous analysons les systèmes éducatifs et nous appuyons les politiques éducatives. Alors, dans le cadre de la foire euh, des innovations en éducation et formation organisée par la COSIDEP, euh, on nous a demandé de parler de la qualification et de la certification des jeunes et des adultes. Donc pour nous, euh, c'était de voir comment est-ce que, dans le triptyque éducation, formation et emploi, comment est-ce que euh, la formation pouvait être au service de l'éducation pour que cette éducation soit pertinente, pour que euh, les jeunes et les adultes qui sont dans le système éducatif ou en dehors du système éducatif puissent être mis ensemble pour une formation de qualité qui va leur permettre sur le plan professionnel d'être qualifiés pour un métier, mais aussi qu'on ait aussi un, dispositif de certification qui va, leur permettre d'avoir des compétences euh, précises pour exercer un emploi et avoir un métier. Donc euh, pour nous, c'est un thème qui est très important parce que ça fait beaucoup de réflexions et d'orientations au niveau de la Conférence Et la Conférence étant au service des États et des gouvernements, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été faites dans ce sens-là. Et nous avons partagé ces réflexions avec les participants à ce panel-là. Et c'est le lieu vraiment de remercier la COSIDEP euh, pour cette thématique. Euh, en tout cas porteur, très porteuse et très importante euh, actuellement. Parce que même dans le cadre de l'ODD 4, l'objectif du développement durable, il est clair que nous devons aller vers une éducation qui va vers la formation et la formation de tous les jeunes en prenant en compte les besoins de formation et les besoins en métier avec le secteur privé, que ce soit le secteur public qu'on a dans nos localités et dans nos pays respectifs.